vraiment suñu xel dal na parce que gis nañ liggéey bi ni muy demee et li ci gën a dalal xel mooy matériel bi yëpp mu ngi sur place euh, li ëpp ci travaux yi mooy structure bi def nañ ko ba pare donc euh, li ci des mooy demander ñaan entreprise bi rek mu gën a baral loxoom pour que travaux yi gën a gaaw xam ni xaw na yàgg mais c'est vrai que ñoom aussi dañuy jël travaux yi dafa am ñu ko yoroon ñoo ñu def peut-être mënuñu dem ñu bàyyi ko fii mais le ministre jël vraiment engagement jël ko ci ay euh, budget ministère pour jàppale ñu donc di entreprise bi moo ko gagné donc ni ma gisee daal vraiment alhamdulilah travail mu ngi avancé bu baax. parce que ñu ngi xalaat en tout cas au niveau atlique bi ñu proposer maire yi benn modèle bu ñuy gérer les infrastructures parce que ñoom seen sañ-sañ la ñoom ñoo yore entretien bi voilà ak euh, gestion wu stade mais ñëpp xam nañ ni souvent ni muy doxe c'est-à-dire ko xasee liggéey rek day commencé yàqu mais ñun aussi ci ligue bi dinañ leen essayer accompagner proposer leen modèle boo xamee ni ñun dinañ participer ci ci gestion bi parce que tamit li ñuy def ni yëpp ñun la su yàqoo ñun la yàqul donc il faut que ñu accompagner leen ci côté boobu am nañ ci ay xalaat dinañ ci waxtaan ak ñoom incha allah. mais bon xam naa ni dinaa ci wax ak entreprise bi ba xam exactement ñoom ñu ngi ci doon waxtaan sax léegi mais dinañ ci am lu gën a leer bu ñu defee évaluation visite bi ba pare donc su boobaa dinañ communiquer ci date yi incha vraiment di di kontaan rek ci li nga xamee ni def nañ ko ci ligue bi parce que ñun quand même dañuy organiser suñu championnat yëpp en junior et en senior et championnat lay doon aller et retour actuellement ñu ngi ci phase retour et bientôt mën nañu fixer date pour suñu finale euh, mais aussi dama ciy profiter ma remercier le ministre des sports parce que fonctionnement ligue dafa metti te li nga xamee ni moom la ñuy am en terme de subvention doyul et moom daf ñu mus a accompagner ba nga xamee ni ligue Diourbel vraiment ni muy doxee vraiment macha allah ñu ngi koy doxal li ñu war a fay yëpp. notamment ay arbitrage ak yëpp ñu koy fay normalement donc yore luñ kenn dara donc alhamdulilah kontaan nañ trop ci liggéey donc dañuy profiter rek ma bëgg rek remercier aussi vraiment voilà tous les membres de la ligue parce que je sais que ñoom ñëpp moi je suis à Dakar souvent du may disponible mais ñoom taxawu nañ ligue bi notamment le vice-président Eli Ibrahim Fall ak vraiment les présidents de commission ak ñi nga xamee ni aussi ñëpp ñooy yëngu ci ligue bi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter ñoom yëpp.